asalaamaaleykum wa rahmatullah barakatu Cheikhul Xadim ñu nuy bokki jullit yi bokki talibe yëpp di yëkkat sunu kàddu ci turu mbooloo mi ñu àndal ñu seq ak ñoom liggéey bi ñuy suñu kilifa féetañ ci kaw mu ngi comité bi sëriñ Cheikh Bass jiite ñu bokk ci bànqaasub organisation sëriñ Mbàkke Madina jiite ko ci comité bi ñu féete itam ci wàllu coordination bi di coordonner diggante sous commission yu ñu am ci biir sous commission d'organisation bi parce que comité bi mooy comité d'organisation bi waaye da ca am benn commission boo xamante ni dañ koo dénkaat wàllu organisation ci biir li yor loola nag daa am ab commission bu ñu dénk restauration war a saytu bernde yi nga xamante ni ni moo jëm si ci résidence Seexul Xadim bi ak ba ca daru Marnaan muy ganu kilifa diine yi nga xamante ni ñoo bokk ci turux suufiye yi nekk ci biir réew mi ak association yi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllu lislaam tey teewee si màggal ñooñu lañ yor seetu toppatoo amaat itam ab commission hébergement nga xam service yi activités yi laaj ci biir kër gi ñoom ñoo koy saytu amaati benn sous commission bu ñu tuddee sécurité moom itam ngir gan ñi fi ñu dal ñu mën leen di saytu ba seeni bagage du tasaaroo ku bokkut ci ñoom itam du leen rax yooyu mooy yi yor ak intendance nga xam ne bagage bi ñu yor itam loxo yi mi nekk ba man ko faa jële yóbbu ko ci barab yi mu jëm te du suut fenn moom itam nekk na ci biir loolu lañ ñu dénkoon ci wàllu organisation bi ak organiser cérémonie officielle bi ak yenn activités yoo xamante ni danay am ci biir mel ni conférence bi raw du def ca tolle ak it beneen conférence de boo xamante ni waa communication danañ koy def lu jëm ci wàllu organisation. yooyu gàllankoor yi moom xam naa du du bari ndax lu tax du bari mooy da tudd gàllankoor. mooy mbooloo moom boo leen di saytu da ngay fexe ba kenn ku ci nekk toog place am xëy na léeg-léeg gàllankoor mën na caa juddoo mooy ñenn ci nit ñoo xamante xëy na dañuy xuuse ba duñ xam seen place waaye da nga mën a jëflante ak ñoom ciy teggin ba fi ñu war a yem ñu yem fa ndax da xam ne xërug murit te leen jàpp rek waaye teewut kenn ku nekk am na wàccuwaay ndax ginnaaw loolu moo ciy sunu liggéey loo ca taseel da ngay jàpp ni da ngaa taseeg sa liggéey rek ngir war koo def kon du du du jafe-jafe waaye bëgg yëf yi aw aw yoon la waaye jàpp ma ni beneen gàllankoor mën na mën na caa am ndax ñu ñëw ñëwuñu pour saboter yow miy jógit da jóg pour defar te mbir la moo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk alal yoon wi la yoon wi lañ ko téyal kon nun nooy am melokaan woo xamante ni ni ku ñëw danañ la mën a maîtriser. waaw personnel boobu itam ci biir comité boobu yi dañ koo séq ak waa Muxaddamatul ma ak waa Wilaya. muqaddimatul xidma mooy kuréel gi nga xamante ni ñoom lañ dénk lu jëm ci saytu jumaay Tuubaa ji ak barab yeeg li ko wër wilaya bokk ci benn fédération boo xamante ne ni fédération bu mag la ñu fédération de groupement religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba aju ci fukki section ak ñett ñoo xamante ne ni fukki régions yi ak ñeent ci biir Sénégal fenn fu ci nekk am nañ fay ay de base foofu yi ci section yooyu ci lañ dem jël ci ay nit parce que Touba mbir mi xewe waa Touba danañ ci am ñooy bokk ci responsable yi ko jiite ndax ñoo gën a miin dëkk bi parce que fi lañ dëkk bu ko defee nag yeneen section yi ci des li ëpp ci mbooloo yi foofu lañ koy jële ci la ñuy composé lim biñ soxla mu toll ci 450 personnes yoo xamante ni dañ leen di tasaare section bu ci nekk lim ci war a indi ci ay góor ak i jigéen kenn ku ci ne itam danañ la orienté ci su commission ba nga jëm moo xam restauration la wala hébergement wala intendance wala sécurité noonu lañ leen di ba kenn ku ci nekk lañ lay def loo incha allah da nga ko def ci defin wu sell woo xamante ni bala ngay ñëw dana fekk nga xam li nga war def lépp waaw moyen de communication bi de moom mooy mooy mooy téléphone rek waaye nag day fekk nu doon jaxasoo lu ko jiitu ndax mbooloo mi mi ñu yor chaque semaine fu fi cellule de base dane danañ daje bu dee commission yi leen yor semaine bu jot danañ daje bu dee comité directeur ba koy saytu 45 jours yu bu fekkee section ba la 2 mois yu ne dana daje su fekkee secrétariat bi la 3 mois section la 3 mois yu ne dana daje su fekkente ne bureau fédéral la 3 mois yu ne dana daje kon mën noo ëmbante boo xam ne dañ koy dund activité màggal boolewunu ndax waxtu ci nekk communication bi lu yomb lay doon ndax liñ leen di wax fekk nañu xamoon ko laata ñuy ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah